bismillahi arrahmani irrahim sala allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama an anas bni malikin radiya allahu anhu qaal qaala rasulu ullahi sala allahu alayhi wa sallama inna lillahi ahlina min annaas qaalu ya rasula allahi man hum qaala hum ahlul qur'aani ahlullaahi wa xaasatuhu rawaahu ibnu maajata fi sunanihi Sayyiduna Anas ibn Malik may Allah be pleased with him narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam said verily Allah has his own people among humanity They said, O Messenger of Allah, alayhi afdalu salati wasalam, who are they? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, They are the people of the Quran, the people of Allah and His chosen ones. Ibn Majah. جعلني الله وإياكم من أهل الله أهل القرآن وصلى الله على سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wa sallama amin